موي انما المؤمنون اخوه فاصلوا بين اخويكم دادي دادي دغل باتو سا بروم با نك واختصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تموم لب سن توبا نسال الاسلام عند قربتي لا لا جزائري من تربتي ما خامني كون سن توبا الاسلام يا تنك لوخوم سابت الفال بولي نيب امنو كاج امنو سين بو كام جوتي وول ريو ماك بي سن امدو بار نديغن يونيكو دارا مام بوكو ندياسان يونيكو دارا بوك مريد ييب yónnee ko daara ko bokki tijaan yëpp yónnee ko daara bokki xaadir yëpp yónnee ko daara ñëlal fi ci buntu kër gi dakalu pinci nak nag gam fi gam bu suba gi ci gam gi non lañuy non lañuy def jang alcorane bi mu joxe ab lim amna ñu ni daana daana wax ni lim limu eh, at yi rus Muhammad rasul sum dund ci aduna nañ ko jang ci suuf limu kaami waaw juróom-ñaar fukk nangam lim lim bu tol nonu manam bal Faal ya nga xam tan nak mom moy seen jëwriñ ñom tam yek ko kaw garab yi diggante kàdd ak guy yi kar bu atti nit ab bay fa yek fa ñu ñu fa limbu tol ni limbi ñu jàng ci suuf ñu jàng ko ci ko garab oh, ñu naa ñu bi ak kaamilu suuf maam si erafay ñu daan gàmmoon est-ce que Baye euh, Kawsara ak dañuy gàmm Kawsara di gàmm di gàmm di gàmm lan sabab loolu ah, waaw Euh, gàmm gee desandi. loolu ci suba gi la ko maam si fa daan gàmmoo. gàmm win wa. ba doomam yooyu nag royee ko noona su añ jotee ñu indi xiiwal gi. Mm-hmm. nag yéeg gëléem yéeg banjool yeeg xar yeeg béy yeeg ginaar yi ñu togg mu ne gàññi fii. ñu ñu jàng xasal suñ tubaay ba ñu ko jàng di ko jàng di ko jàng di ko jàng di ko jàng ba reer ba noppi nag ñu jóg li suñ tubaab ne lil xulóobi xóotoo isin tafa fa annaha tamootoo loolu nag boo buñ ko defee asamaan set saaman si fal ni tëll nag génn daal di wéeru nag ci ñu ñu ñu lalal ko nag ci ëtt bi bàyyi fal yëpp daje ak xarit yi ak soppa yi ak wëllër yi ku mu neex mu tàmbalee waxtaan ak ñoom nag ci yàlla ci yonent bi ci sëñ bàmba rek ak gàmm ndax daal wax ne ah doom fu ngeen matatu ñaar a ñett nekk leen ci yàlla ak yonent bi ak baam bàmba sama sang bi su ngeen ko defee yéen a ngi ci tool bi su ngeen ko deful nag doom yéen a ngi ci mbooy gi te mbooy gi kat doom ku ci nekk bis ak daay di dig lu fekk da koy lakkaal kooku daana digli daana tere daana digli daana tere nga xam ne noonu lañ ko baaxoo di defee saa bu ñu ko am ba suba waaw fii ci ëtt bi ci la woon ci maam Cheikh Ibrahima ba loola amee mm. da ko yaatal ca sawub kër gii daal di jéggiwaat raay muy kër Cheikh mm. loolu foofu fi mu ne temb na moo tudd kër Cheikh mm. fii tudd Medina Fall muy kër sëñ Moussa Fall gi ci kër si mhm. fi sëñ si ndigal Fall ne ak fii sëñ Mba sëñ Mbacke Fall yeesal muy kër sëñ Moussa Fall gu loolu lépp mhm. sëñ Moussa Fall da doon gay nag ñëloo moom itam bu Moussa bàyyi gi maam si Ibrahima Fall joxoon Sëriñ Assane dem naa ci siriir gii sësoo ak moom ma fekk fa ay ay ay kilifay séréer te ay catholique lañu mu wax ni sëñ Modou Moustapha Fall bi mu fi nekkee daara jee di di di di aynu rahmati ba sëñ Modou Saa Fall Moussa ñëw ñun ñëpp dañuy jël suñuy cin dem di fa toog bi te boobu ñun ay catholique lañu kon Saamam Ibrahima Fall moom moom si moom ko wax euh, muy 2006 2005 2006 ca këram xandal ga tiim ko séréer boobu mën naa la wax aw turam ab catholique la te kenn waxuma ko ca booba Père Mbaye nga fa hmm? wax na ma lii Père mbay moom tam ab catholique la waaye ko rafet xol la ba ñuy wax Omar Diouf nga fa booba tam ca téere boobu la dëkk waaye ñoom taamanti el fa yaatal ga mu yaatal noonu mu ni sëñ Moustapha Fall bu Moussa ñëw ñun ñëpp de suñu ndey yi dañ daan dañ daan jël ay cin ak soxna yu mag yi di di soñ bi ma ci ubbi lépp mille neuf set sëñ Modou Sa Fall dajale rakkam yëpp ak mbooloo mépp ni si ni maam si Ibrahima Fall daan def mu daal di yëg mu daal di ni bi demal ci sama ron nga gën a indi bataaxel ba fa ne bëkk bi daal indi bataax nii ma yooyu sama nooru daare ni indi bataaxel bi teg ci loxol sëñ Modou Moustapha Fall moo ma ko joxoon moo ko bindit nee na ko Baye Fall yëpp dégg na ko Baye Fall yëpp yëg daani Baye Ibra Cuun Samba Naar Ilimaan Cheikh Ibra Ilimaan Cheikh Fall mm. Baye Ibra saa baay moom nee na dafa man faal mën ma yëngu doon sàmm. ak Cheikh Ibra Fall dafa wax ci bataaxel bii ni koy jëfandikoo poon ba faatu te bàyyiwoo ko doo gisee man yoomul xiyaamat dégg nga loolu si ne Cheikh Ibra Fall bàyyi doon Cheikh Ibra Fall sëñ ma sëñ Modou Moustapha Fall ngi toog sëñ Modou Tall mu doon jëwriñam ngi toog rakkam yëpp a ngi toog ak taalibe yi doo gisee man yoomul xiyaamat ab jurit nag lu muy def. saa yu ko déggee bu ko tuubee ñu jéggale ko ndax wa man tadaa rakka